màggal ak Touba muy dix-huit safar ci jaar-jaar yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul gannaaw ba ñu ci jàllee nag ci point yu bari ñu ñëwaat nag ci beneen bi nga xam ne moo topp ca yooya te xewee fële nga xam ne mooy Mauritanie muy gànnaar ndax suñ borom kat moo ko waxoon ne ko natt yiñ lay tek ci ay tis mom jeex na ndax dat go yiñ la ko appalon def nga ko lu jitu lolo waye dat ya mom maga fa te dat yooyu yit des na lu toll ci fan wala juróomi wer, juróomi wer. yo xamne ne des na la tagat natt yi lol nak dana tax nga dem ganar bo demé ma tégal la fofa ay natt yu mako ko jaral ndax fofa amna na fa ñun ñi ngi am ay cër ci yalla te faatu nañ te cër yoyé ñi leen fi wutu ñu ko sotal kon yow dem fa ma teg lay natt ndax man sama mbir du wat kanaw kanam la jëm ma teg la fay natt jox la cër yoyé yépp nga xamné ku melne ahmadu buddu naar yu bari yu fa nekk di boroomi mbir ñooñee ba yàlla tege nattu ya Xadim la jël seen cër yooyu yépp ko ne ko demal nga jëriñoo ko yàgg seen njaboot loola mi ngi xew woon ci diggante xumaak ak sarsara ak jaraari ak fi nga xam ne mooy tintu moxsin waaye xam ngeen ne sarsara foofi la wirdu manqushun min allah bi wasati rasulihi yonente bi dikkal Sëriñ Tuubaa xaadimu rasul jox ko ko foofa tamit naar yu bari daanañ ko fa dikkal ñii ñëw di ko laaj ci alal mu di leen koy jox ñii ñëw di ko laaj ci xam-xam mu di leen koy wan ñii ñëwi tamit di ko laaj ci baatin ñenn ñi ñëw di ko dingat waaye képp ku fa ñëw di ko dingat nag dana la wan loo xam ne dootoo ko mën a dindi ku ñëw di ko laaj ci xam-xam it dana la jox xam-xam boo xam ne yow raw ci sag képp ko xam ne tamit da ngaa ñëw di laaj masala it jàpp na yow rek ko xam it dana la ca wax lu loo xam ne xamoo ko wirdu ma usul min Allah bi wasati rasulih sallallahu alaihi wasallam serigne am sattu jaxate netali na ci lu bari ndax neena bobé nga xamné dañoo nekk sarsara serigne bi dafa mbar la won am mbar mbar mom fa mbaron nak bi mu ñibisé ci bi dafa nat la ñent daadi gas am pax daadi fay deful toll ci juróom ñaari gaal yu def ay téere bam ja defee gaal yooyu nag ba noppi jamono boobu bi mu nekkee sarsaara nag ba yàlla dogal mu mbaarlu fa mbaar daa di woo sëñ am satu jaxate ne ko kat daam lëggéey boo xam ne suñu borom laa ko laa koy lëggéeyal ta xamal na ma ne yow ko wara a bokk da di sak lu toll ci fanweeri nit ak ñett ne len dama bëgg ngeen delu ci su ngeen démé ngeen dem ci sama kërub daru ma naan ga ci sama sawu nek ba ngeen natt fa nangami xassab gas ba mu xoot ngeen jël sama juróom-ñaari gaal ya fa nekk yanu ko andil ma ko fii ci sarsaara te bu mu laal suuf dari di wut ñetti mbàjj jox leen ne leen bu ngeen demee na ngeen ko ci laxas su ngeen ko yanoo di dox ba sonn dee leen ko awante su ngeen demee ba bëgg a tëdd na ngeen lal menn mbàjj mi lu teg ci gaal gi li ca def ngeen muure ko ko daal di tëdd wër ko ba ba set noona la mag ñu am pasteef ya nekkee ba indi gaal ya fa nga xam ne mooy sarsara sëñam Amsatu nee na mbaar ma nag ba mu ko mbaaree dañ faa teg gaal ya bis bu yàlla sàkk nag dana ubbi gaal yi di jukki ci aslëf dikk wan ko ne ko sotti lii nee na su ma ko sottee ba lam ma joxoon jeex bu jullee tisbaar bu sëñ bii ñëw du jaare ci néegam day ñëw rek jubal si fi nga xam ne moy fi la nek di bind suma ma nak la nga xamné mom la soti ma jox ko ko la ma ko soté tamit ma jox ko ko mbindum boppam moomee ma ko soté nak néna sëriñ bi di jël ab kël def ci kayit gi soti ci ndox jambo ko ba kayit ga ak mbind ma mu naan ko bam mu tak duma ci may dara néna loola sëriñ tubaa def nako ba tax mu ne gannaaw bi sëriñ bi jógee gabon mu ngi ci géej gi mépp mbind mu ngeen fa gis rek xam leen ne du mbindum Sëriñ Tuubaa mbindum am sëtu la loolu moom la def ca gànnaar waaye sañam sëtu jaxate nee na lii nga xam ne mooy wirdu maxuusun min allah bi wasati rasulihi yonente bi salallahu alayhi wa sallam moo ko ko andil ca fa nga xamne moy sarsara ganaw bañu agge ci koor ga nga xamne yalla dogal na ci la ko yonent bi dikkalon ci laylatul qadr ga ci fukki fan yaag lu top ñen ñi waxit yenn dat waye la ci mëna am rek fofa la bam ñewé mu ne ma tay kat dama bëgg ngeen ñaanal ma yéen ñi nga xam ne seenub liggéey yàlla nangu na ko ndax dafa am lu ma suñu boroom dig loo xam ne su ñëwee kat dana baax ci man dana baax ci yéen ma bëgg na ngeen ñaanal ma ci yéen ñi nga xam ne seenub liggéey yàlla nangu na ko soo ñoom du jaxate wax ko ne ko man de xumma lu ma la war a ñaanal waaye soo ma defalee baatin bu ma la ko mën a ñaanale de danaa la ko ñaanal ba loola am sëriñ bi daal di ko koy defal sëriñ bi nee na suba teel bi mu xëyee la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dajeeg moom ca tund wa ci genn garab gu yor ay dëkk ñii ngi naan sump la ñii ngi naan leneen la waaye garab gu yor ay dëkk nee na nag nelawul gëmmul géntul dafa jàkkaarloog yonent bi jeex ran jàkkaarloog bi nag yonent bi sàkko wirdu maqoosun min allah bi wasati rasulihi sallallahu alayhi wa mu daal di koy bind ba mu àgg nee na mu ñëw fekk nu fi nekk daal di may wan bind ma nee sama bët bi tegu na ci mu ne ma lii laa leen doon ñaanloo yàlla dogal na ñëw na kon kuy critiquer yoonu murit ci wàllu wird nekk leneen ci beneen pas-pas mbir day jaadu bala nga ciy dugg di wax dara nga am ca sañ-sañu wax te boo cay wax nga waxe ca xam-xam te xam-xam kat mënoo ko am te jënguloo ko muy xam-xamu téere walla xam-xamu histoire soo ko xamee nag ba noppi nag yaa yor sa cëggal guy xool la nga ca mën a jàpp nga jàpp ko la nga ca mënta jàpp yëpp nga xam ne mënoo koo jàpp waaye nag di diingat loolu mënoo cee joxe benn dëril loolu dama ko natt ci sama xol natt ko ci sama xel rek ba mu wóor ma ne lii mënta nekk rek ma ne mënta nekk loolu wedd yàlla la ci wedd yàlla yi gën a kawe ci la bokk ndax yàlla moom mooy yàlla te ñëpp xam nañ ne ñaar ñaar yàlla amul te yàlla ku gis ay mbiram xam ne ku yéeme yéeme la nekkul ku ni xam waaye sëñ Tuubaa daana wax naan ñàkk koo xam rek doy na xam yàlla waaye nag kon nga xam ne suñ boroom a ngi noonu nee na mbind ma wax na ne bi mu ñëwee benn xaritu naaru gànnaaram bu tudd Mouhamadul Moustapha ibnu Ousmane al Alawi moom la ko joxoon wan ko ne ko léegi laa jóge ci samaam gis naa ko kon nag yow jëkk a jox wirdi wi nga bind ko wax nañ ne ñee nañ mbind ma mbindum Mouhamadul Moustapha ibnu Ousmane al Alawi yi la ñee wax na yëpp mbindum seexul xadim la waaye lu ci mën a am rek sëriñ tubaa moom jàkkaarloo naag yonent bi jeexran kon boobu xew-xew xew na ci fa nga xam ne it mooy Sarsara beneen xew-xew it amaat na foofe muy Serigne Touba kat dafa nekkoon ci ndawam ci mboolem téere yoo xam ne day tax nga jege suñ borom wala nga xam suñ borom wala yonente bi sallallahu alayhi wa muy téere yi ñuy yokkoo da koo lool mu bokkoon nag ci téere yooyu benn téere bu tudd mawaahibul laduni alxazalani mawaahibu laduni alxazalani boobu yi nag daf doon téré bop daf lay nettali jaar jaar yi yonent bi ak melo ak dundam ak yépp serigne touba nak mokkaloon ko lol ba benn bis nak mu tok nak di natto téré bi ba xam mokkal ga des na ci momam déet ba mu ko taré ba nopi gis ne wu ca dara la daal dem nag ci ay Don ko wër bi mu wëree wëree wër ba sonn gisul téere ba la daa di woo nag ku ne wax Ibrahima Joor Amar ne ko dama laa bëgg a yónni nga wëral ma téere bi ci biir gànnaar soo ko nga andil ma ko soo ko gisulit na la jaral jàll ndar soo demee ndarit soo ko wëree boo ko gisee nga andi ko soo ko gisulit nga dellu siwaat yàlla dogal mu daal di dem daal di wër téere ba ci biir gànnaar ba sonn gisu ko mu daal di jàll fa nga xam ne mooy ndar ba mu demee wër wër wër téere ba gisu ko la daal di wàññee ko waat jëm si gànnaar bi mu ñëwee gànnaar ba ak si jaraari ci wetu barab boo xam ne kër ku ñuy wax Muhammadu ibnu wala Ahmadu Buddin ibnu Muhammadul Halabi moo fa nekkoon mu jàddoon fa moom nag doon ko nuyu ndax ahmadu buddin ibnu muhammadul alawi moom yi waa ibnu haafis ibnu haafis ñoo ngi jéggalu ahmadu buddin ibnu muhammadul haafis daf doon wëlle réew baayu ibrahima joor amar moom yi mu jax dafa ñuy waxtaan di waxtaan ba mu àgg nag ci wax ko ne ko lii day moo ma taxoon a jóg moom la ma Cheikhul Khadim yónni woon muy téere boobu yi ba mu ko ko waxee mu daal di jóg daal di dem ci ay téereem di wër di wër ba gis téere ba muy mawaa'ibu laduna la ladunil fi xasaa ladunil boobu yi andil ko ne ko téere baa ngi nii boo demee nga joxal ma ko seexul xadim ne ko jox naa ko ko addiyey yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam mawaayibul laduni alxasaalaani boobu nag boobu yi nga xam ne Ibrahima Dior Amar ahmadu buddin ibnu muhammadul hafiz jox na ko ko ba wax ko ko ne ko joxal ma ko cheikhul xadim ne ko jox naa ko ko addiyey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ja daal di tegal ay sart sart yooyu nag moom lañ fas yéene ñëw ci sunu waxtaanu fukkeel bi ak ñeent kon ñu ànd dem ci waxtaanu fukkeel bi ak ñeent ñu mën a xam mbootum téere boobee la ca aju ak dayob ka ko joxoon fa tolloon ak lako ko ca Serigne defal nga xam ne kon day daal di feeñaat ci la ko yàlla ne woon demal boo demee rek nga daal dem gànnaar danaa la fa teg ay nattu ci toll ci juróomi weer nga xam ne weer wu ne am at la soo ko defee ba mu àgg nag ma jox la cër yooyee nga ñëw ànd kook sag njaboot kon jërë ngeen jëf